salaamaaleykum suñu mbokku internet yi ñi ngi am mbégte kontaan te di leen nuyu ci seen beneen numéro interview nee naa leen tey dañoo doxantu ba fii nga xam ne mooy Liberté 1 c'est kii nga xam ne day yëngu ci wàllu mode ñëpp xam ko ñëpp ràññeeko muy jigéen nekk euh, vraie femme d'affaires ñëpp xam ko ci tuddu Adja Ombélico Mbéliko nag lañu seet si fii tey ci Liberté 1 ah, fas yéene waxtaan ak moom képp ka nga xam ne rek fan sam nga wala ngay internet du suivre Télé Sénégal ñi ngi lay ñaan léegi léegi rek nga toog seetaan ñun lii nga xam ne moom la ñuy fas yéene waxtaan ak Mbéliko moo tax foofu laay jaaree nank rek daal di koy nuyu ne ko salaamaaleykum Adja. maaleykum salaam maa ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ah, Télé Sénégal. mais Adja dañu bëggoon xam tey yow ak artistes yi mhm. nan ngeen liggéey liggéeyee ndax dañuy gis à chaque fois muy artiste animateur mhm. animatrice mhm. dañ naan Adja moo ma génnee tey fii ma sol dañu buggoon xam ba xam yow dafa nekk ni yi ngi leen di solal da leen koy may wala dañ koy sol suñu paree ñu delloo si ko wala ñoom dañuy joxe cinquante pour cent yow nga joxe cinquante pour cent ndax ku bëgg a dégg dëgg tam xam na ne butigu Adja Adja du jaay la nga xam ne euh, mooy loolu comme ça prix bi yombul benn yomb ba nga xam ne à chaque fois ku ci solu ne moom ma solal nga leen koy may bu fekkee da leen koy may est-ce que du nekk pertement tam benn instant ci Adja. waa artistes yi ñoom ñëpp ku fi solo dama lay defar cinquante pour cent du prix parce que soo xoolee beneen cinquante pour cent bi ce sont des frais de pub parce que koo solal moo indi fukki nit xam nga kon du ci ñoom ngay wut li ngay gagné. ñoom dañ lay jàppale ci benn côté parce que dañ lay defal communication yow it nga jàppale parce que soo xoolee seen liggéey dafa metti ñoo xam ni euh, ci semaine bi mën nañu jóg ñetti yoon loolu kenn amul budget suñ koy jënd yëre dafay metti moo tax yow da nga ciy jàpp ñoom ñu jàpp sa liggéey parce que tey fu ma egg tey rek mën naa ne artistes la ak animateurs yi imaginel ku nekk ku mel ni naa Poté ku mel ni keps ñoom suñu xëyee ci télé bi di def seen émission booba ba ñuy pare sama wax la ñuy wax suñu paree suñuy rakk suñuy teg seen micro sama téléphone dootul arrêté li ñu sol li ñu sol li ñu sol li ñu sol xam nga kooku mi ngi lay liggéeyal moo tax nag chaque travail aussi à un prix moo tax suñu ñëwee dama leen di defal prix bi cinquante pour cent ñu jënd moitié bi leneen moitié bi ma supporté ko et loolu dama koy considéré moo tax du ma mën a def yeneen pub parce que sama budget comme pratiquement ci loolu lay dem je perds beaucoup d'argent sur ça mais damay considérer moom mooy sama budget communication. Mhm. kon loolu moo gën a tax ne du ñu gis Adja di def yeneen communication yu bëri parce que da ngay liggéey ak ñoom en même temps. waaw ah, ma ci boole yeneen communication ba musiba am ah, ah parce que budget bi day jeex nag kon dootuma am sax lu ma jëndee yëre yi moo tax nag communication dama koy yemale foofu ñoom ñu téye ko yore communication ti li ci neex mooy yen saa yi ñu ñëw ci boutique bi fekk ma voyager. Euh, duñ ma mën a jot ñu jënd seen yére cent pour cent prix bi jënd ko à cent pour cent ba pare wëlbatiku def ma publicité xam nga ku loolu dootul relation sax jàppalante mais ay mbokk lañu dañu àndandoo di liggéey parce que tamit loolu lay wax ay jeunes ay naataango suñu bokkee réew mi ku ne war cee bay sa waar dañu war a àndandoo rek ku mën a puus sa morom nga puus ko parce que ñun ñëpp suñu àndandoo dem dëkk bi dem xam nga looluy dëgg man Adja Ombeliko man damay